Cheikh Sidi Mokhtar nee nañu nee nañu nee nañu nee nañu amati boqal bu gaaw moo waral ma jooy ko tabdil araadi suuf si sax jooy na ko asamaan juróom-ñaar lépp jooy nañ bu dee ba jëgi lépp Cheikh Sidi Mokhtar jullit yëpp nee nañu yàlla fana fi ku mel na moom dootu ñëw ci suuf si bennoo jullit yi moo moo doon liggéeyam ndam li mu ci moo ne woon bëggatuma dégg murit mbaa te tiijaan di xas moroom ja mbaa di sànni aw saan seex sidi muxtaar yaa wuutu woon bamba mi wuutu yeneen ba moo tax nga def lislaam mu nekk sab yan ñaari soora ñaari soror ya nga def ca jumaa ja ca la ñëpp xam ne yaay waaja sëriñ bi yaay juróom-ñaar ci doomi sëriñ baara ah. nekkaat juróom-ñaar ah. ci xalifa yi doomi maam jaara yaay juróom-ñaar ci doomi sëriñ baara nekkaat juróom-ñaar ci xalifa doomi jaara juróom-ñaari at yi nga jiite suñu yoon wi